bi daal di kon euh, dëggal ordonnance bu doyen des juges daal di dàkk kon boobu les recours bu Ousmane Sonko euh, mi euh, tuumal Mamour Diallo ki nekkoon directeur des domaines moom daal dinay réagir bëggul kon addu jëmale ko ci dogal boobu le tukkee ci yoon waaye nag setal na boppam ba mu set wecc di xam ne ni yoon kon nañu fexe ba daal di génne dërëm boo xamante ne jël na ko ci budget bu nguur bi leneen loo xamante ne itam def na ko mooy addu jëmale ci Ousmane Sonko mi koy tuumal di ko xamal kon ni ni eh, na sëgg ci eh, li koy yoon di toppee moom moo gën saay su ne muy génn ñu on ceeg moom Mamour Diallo. kii di ma wax ni damaa sàcc 94 milliards damaa bëgg ngeen xam ni. rek c'est un caïd assoiffé d'argent et de filles. ndax moom dafa ñu dafa bëgg réew mi. ndax sénégalais yi laa wax ñoom pare nañu pour jox seen réew jiital koo xam ne dañ koo jiiñ accusation yu grave yooyu. man dama jàpp ni wax ju bari ji muy mébétu yëpp di jëfur semaine bu ne mu génn wax Sénégal yi dégloo duñ ko sax. première fois ci histoire bu Sénégal accusation bu toll nii dal ci kuy nekk candidat à la présidence loolu comme sonn moo tax ci fan yu néew bu neexee yàlla da ngeen gis ci parti boobu ñuy woowee Pastef ay kàngam yu mag a mag génn foofu loolu fii ci Louga laa yile euh, kàddu Mamour Diallo mu ngi ko yëkkati ci ab forum bu ñu doon amal ñee xëy ak formation ndaw yi ñu amaloon ko ca diwaanu Louga moom nag mu daal ci porox ndollu ngir daal di déclarer officiellement candidature am ca mairie ba Mansour non Mamour Diallo mënu am réponse ci li mu wax di ah parce que man doon naa doon naa bëgg ñu teg Ousmane sonk moom mu répondre Ousmane Sonko mais yoon génne démbam démb jëluñu communiqué Ousmane Sonko wala jàll Ousmane Sonko après moom jàllale ko te moom mi ngi soog a nangu pour wax ça pose problème aussi parce que doo mën a analyser moom Mamour Diallo musta accepté pour wax ci dossier bii nii Euh, pourquoi mu ci mu profité wu ci ab from na ko na ci wax de façon très sérieuse journaliste yi ñoom ñoo ko ci ah, interpellé mais mais dégg nga wax ci euh, ay fan yu néew dina am ay militants Pastef yooyu suñu ay ay militants nekku ci dañu wax ci milliards Ousmane Sonko tuumaal tribunal wax na ci démb na ci wax xalaatam sérieusement comme ni ko Ousmane Sonko waxee mu leer mais pas ay meeting man de mën ma ko commenter Euh, euh, euh, Serigne Saliou ci loolu moom setal na boppam nee na laalewu ci te amul benn tribunal bu mën a génne dërëm bu mu jël ci kees nguur gi. waaw mais xam nga présentement nii Ousmane Sonko dafa saisiroon tribunal pour ñu ubbi une information judiciaire parquet bi ak le doyen du juge ñoom waxoon ne Ousmane Sonko amul qualité pour mën a constituer parti civile mu dem au niveau de la cour d'appel chambre d'accusation ñoom ñu dëggal li tribunal première instance bi wax. donc cela veut dire quoi ça veut dire que ñoom dañ ne Ousmane Sonko c' pas lui qui doit agir pour que ñoom ñu mën a ubbi une information judiciaire seetaluñu ko ci dara parce que on n'a même pas ouvert Ousmane Sonko dafa ñu ubbi bu ñu woon information judiciaire su boobaa ci la xam ndax moom set na wala setul Mamour moo bëgg a setal boppam moom Mamour ci boppam moom moo bëgg a boppam mais moom kenn setalu ko ba léegi tuuma bi mi ngi fii te l'histoire des 94 milliards là dama ne am la laa la wax lan moo tax ñoom ñu ne duñu ubbi une information judiciaire. Euh, mais Serigne Saliou euh, euh, loolu xëy na moom moo tax muy tëkku tribunal yi ndax nee na amu ci benn. bu bu bu a génne waaw mais man la Mamour tey xam nga Mamour dafa bëgg a nëxasal xelu sénégalais yi. parce que su gisee ñu ne chambre d' accusation dañu dëggal li tribunal première instance bi wax moom day jàpp ne dañ ko xanaa bala ngay setal nga def enquête du moom moo leen war a mën a interpeller pour ñoom ñu ubbi information judiciaire donc moom mënul taxaw ne man damaa set déedéet dara kenn setaloo ko ci dara ba léegi moo ji mi ngi fii te lool je dis que il faut ñu am une information judiciaire pour ñu mën a ñu leeral lool lan moo tax assemblée nationale ñoom ñu gaaw def une euh, enquête euh, comment dire commission d' enquête parlementaire bëgg a jël mbir mi suul ko moom kay na ne na ne les députés Goudou laa ñoom jël ñoom ñoom ñoo ko setal mais amul benn justice boo xam ne pour l' instant ubbi nañ ci une information pour moom mu war a mën a set te nag gis nga mbir mii. gis nga su ko justice setalul journalistes yi ñoo ko ñoo ko ñoo koy setal. Mhm. lu leer la mhm. waaw euh, moom nee na sax Ndeye Dimet du commenter décision justice waaye ba ba muy sangoo suuf amul benn tribunal ni ñu ko waxee ni ki sànq bu mën a. Ah, am décision de justice. moom am na ci droit Mamour Diallo te loolu mu wax aussi mën nañ ko ko nangul jusqu'à la preuve du contraire parce que Khady aussi nañu fàttali ni affaire 94 milliards génn na ay révélation yu bëri c'est une nébuleuse parce que boo seetloo bi 94 milliards yi génnee gis nañ coowal Mercalex que ni Sonko dafa amoon commission bu mu waroon jot ci xaalis boobu ba tuddoon ci onze milliards ba ay enregistrement sonore génn ci di tuumaal Ousmane Sonko beneen fait aussi député yi assemblée nationale ubbi nañ commission d' enquête parlementaire mais moom Sonko aussi nangul woon dem sous prétexte que ni euh, commission boobu noonu député yi fa nekk dañu taxas féete genn wet donc du ñooñ foofu la dëgg di jibee donc tey comme que tribunal taxawee na nii man dama jàpp ni Ousmane Sonko comme dafa yor ay preuve na génn wax ak askan wi di leen preuve yi ma yoroon aussi mu ngi nii mais man tamit jàpp naa ni accusé tamit te nanguwoo bu ñu la woowee doo dem taxaw assemblée nationale nanguwoo aussi génne ay preuve te kon boobaa xel mën na nangu xëy na tamit tribunal dafa gisul dara ci ay accusations yi moo tax mënu ci statuer ñu euh, woy ndey di met ci xibaar yi dem sax fi nga tudd léegi assemblée nationale ndax ëllëg la euh, député yi faree ci ku kujje gi kon ëllëg alxames euh, war a jébbal seen recours conseil constitutionnel ngir ñu fomm loi bi ñeel code électoral bi conseil constitutionnel boobulee ndax matul ndaxte daf ci am ñaar ñoo xamante ne dañoo egg ci âge retraite am kenn ku ci ñàkk bakkanam ak léegi kenn remplacé wu ko mu am mu doon kon juróomi sage te war a nekk juróom-ñaari sage yu fa nekk naka noonee nag opposition bi li nu leen tere loolee kon ñu def seen euh, recours loolee kon la Patrice Sané xamle mu ji euh, analyste euh, politique mi xamle itam ni opposition bi waroon nañu.